gannaaw bi mu ganee àdduna ci atub 1950 Serigne Mouhamadou Makhtar Laye nekk doomu Seydina Mandione mi nga xamante moo fi nekkoon ñaareelu xalif bu Seydina Limaamu Laye ñu ràññee ko ci nekk bi mu nekk nit ku bari ay njariñ sëriñ Mouhamadou Makhtar Laye mu ngi màggee ci keppaaru kii di xalif bi nga xamante ni moom la fi wutu di Baye Abdoulaye Thiaw Laye xalifa bi mu ngi tudd Seydi Mouhamadou Makhtar di doom ci Seydina Mandione mi nga xam ni moo fi nekkoon ñaareelu xalifa Seydina Ba Abdoulaye mi fi jóge xalifa bi moom la ko bàyyam dénk ko ay at dëkk na ko ak xalifa gannaaw nag bi mu dooree li nga xamante ni moo di jàngam fële ci lycée Blaise Diagne Mouhamadou Makhtar Laye jaar na fële ca Maroc laataa rek muy dem fële ca France gannaaw fukki at ya mu def ca bitim réew tey jii nag mu nekk ingénieur en informatique. ginnaaw bi nga xamee ni génn na dem Maroc jàngi. jóge fa dem France jàngi yàgg fa lool. Euh, yàlla dogal mu am vision ndax euh, ku ku dem ci année yooyu suivre wàllu informatique te boobu informatique demewul nii ba dem na ba ñi mu àndaloon sax da wax naan lu tax mu tànn informatique nga xam ni kon amoon na vision. ñu gën ko ràññee ci nit ki nga xamante ne nii dafa mànd lool waaye tamit ku dal. ingénieur en informatique bii nag nekk na ab intellectuel waaye tamit nekk na nit koo xamante ne nii ku xam àdduna la. mu nekk euh, sixième xalifa Seydina Limaam salaam salaam yàlla def mu nekk nit ku daal ku kenn xamul su ma nekk ku kenn xamul mooy koo xamante ni doo dox ba daj ak moom. génnul ci événement yi ba bi mu jëlee yan wi nii am na laay noo xam ne mosuñu ko teg bët. Serigne Mouhamadou Makhtar laay di wéy di sàmm kóllëre bi nga xamante ne ay maamam moom la seqoon ak yeneenu ëttu këru diine yi. moom bi mu toogee yàggul man sunu borom dafa dogal lépp luy relation boo xam ne ay magam amoon nañ ko ak kilifa diine yi teggewu ci tànkam dafa yokk mais wàññiwul. jàmm da ko yitteel. te moom waxam ak jëfam mooy nekk leen benn. ba lépp lu fi mag ñi bàyyi woon ñun ñu ànd téye ko góorgóorlu ci. gannaaw nag bi mu amee 69 ci la nekk juróom benneelu xalif bu communauté Layène lii rekk tax muy wéyal liggéey bi nga xamante ne kii di maamam Seydina Limaamu Laay moom la fi bàyyi.